nga ni fa duut sa metti seen xol yi. ay toog sa ordinateur di tapé di kaj kaj yi kaj kaj yi suba ngoon di saaga di xoloo. bépp journaliste bu ñuy fay xaalis pour nga défendre opposition wala nga défendre pouvoir xamal na yow tu es le dernier de la classe. indignité caractérisée. ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifié ahadis ak ayat alquran yi ngir ragal gouvernement bi. donc man damay wax ne euh, Sénégal toll na fa nga xam ne faw nu accepter la réalité en face qui est que les populations sont essoufflées dañu sonn et que dañu bëgg un changement probant intéressant qui va passer. par la date du 31 juillet, Inch'Allah 2022, qui en principe devra voir l'opposition en général. Et quand je dis l'opposition en général, c'est l'opposition confondue. C'est Yehui Askanui Wallou, c'est AR, c'est Buntubi, c'est les serviteurs, c'est tout le monde. Sachant que, de visu, l'ignogiste campagne, moi, Yehui Askanui a remporté la palme. Mais est-ce que Ousmane Sonko, lui, opposition, ban gis-gis nga ci am waaw nun euh, dañu am benn euh, conviction sacro-sainte qui est que on dira toujours ce qu'on pense et librement et ça peut être une contribution aussi damay wax ne sur le plan de la communication <clears throat> quand c'est arrivé l'histoire à Bignona du discours de monsieur Sonko les gens ont essayé de décrier monsieur Sonko est resté cohérent moi j'avoue que discours boobu ak bi mu tenir à Matam date de same mooy que il faut pas ñu dugal ñu ci ay débat de d'ethnie taxawaay benn bi nag bu ko nit amee dafay mel ni dafa bañ Casamance dans le discours de fond moi j'ai écouté je vois pas le problème on a vu après une certaine presse et des autorités interpréter que dans a not sens waaw daf fi bëgg indi coow euh, problème rébellie c'est lui tout ce qui est archi faux ça waay et à partir de là moi j'ai dit monsieur Sonko sur votre communication bàyyi xel ne ñii yow rek la noo déglu la nuroog la xaw a lenn li même bu du ko même bu dee du ñoom daanu def tout pour mu doon ko te loolu day def xel ñaar naam toute la jeunesse avec monsieur Sonko dëgg bi xam nga moom la la majeure partie des Sénégalais soutiennent monsieur Sonko mais il faut que pas que monsieur Sonko prête le flanc sur le plan de la communication dans le fond Sénégalais yu bëri gëm nañ ko ci conviction ak valeur léegi nag li ci des mooy mu def attention attention sur quoi sur une probable euphorie xam nga euphorie dafa graaw gis nga nit di nga toll maa boo xam ni saa da ngay yëg sa bopp yàlla ko dal. te gisuñu mu dal ko heureusement pour le moment te yàlla bu mu ko dal itam mais nuy wax ne ñi ko wër nañ ko dimbalee lenn nay bàyyi xel ne toujours dafa war a am limite ci wax nay bàyyi xel tamit ne toujours il faut que mu éviter l'autosuffisance mel ni ka xam lépp mel ni ka mën lépp mel ni ka doon lépp jigul kenn sunu borom rek la jig c'est vraiment une contribution à son endroit ba nga xam ni pour bañ yenn sénégalais yi am yaakaar si moom am xel ñaar naam gëm nañ ko du ñu am xel ñaar sénégalais yi mais ñu si ëpp te xel rek la donc noonu nag dafa am nu muy taxawee waaw boo xamee sonnoon doo sonn moi di dis que sur le plan de la communication vu aura bi mu am actuellement il n'avait pas besoin de sa son dernier speech sur l'opposition en disant que ñi nga xam ni Yewwi Askan Wi rek wàllu Yewwi Askan Wi wàllu mooy coalition dëgg bi moo fi seul opposition ñi si des ñëpp daanaka Macky ay soutien am c'était pas à dire parce que yi ñu ngi kaa wax ci mbedd mi sur le plan de la communication. jaroon na ko sax. moom laay wax ni sénégalais yi xam nañu ko sur le plan de la mais foofu damay wax ne organisation bi ak le staff ñooy war a dimbali kilifa yi te kilifa yi itam nangu nu leen di dimbali te ñun sénégalais nanuy bàyyi sunu kilifa bu taxawee ñu ne moo xam lépp moo mën lépp la mu wax lépp dëgg la nanu koy fàttali pour mu xam ne nit kese la pour mu bañ a juum et l'opposant d'aujourd'hui qui est monsieur Ousmane s'il est président demain incha allah rabbi bu fekkee gën na ci moom gën ci Sénégal yàlla na ko yàlla def bu fekkee gënul yàlla na ko yàlla defal li gën indil Sénégal ki gën mais may wax ne au cas où c'est lui incha allah parce que beaucoup de jeunes le veulent le damay wax ne na def attention ci la petite courette qui va toujours dire oui que monsieur Sonko comprenne et accepte qu'on lui dise non c'est ce qui fera de sorte que muy gis muy mën a niveler bu ko deful daa juum te ba juumee noonu dana ko te Sénégalais yu bëri am nañu yaakaar si moom te yàlla bu yaakaar bi tas nuy wax rek ne les partisans de monsieur Sonko et une bonne partie de la population sénégalaise kilifa bu mel noonu nañ ko dooleel nañ ko téye parce que man képp ko taxaw wax France li ngeen di def ak ñun du yoon du dëgg du yoon man dama lay soutenir et notre soutien à l'endroit du sieur Sonko par rapport à ce speech là disant presque merde à la France loolu daf nu neex parce que lu mu dal si coono France moo nu ko teg waaw bu nu gisee sénégalais buy def face ak ñoom dañu see kontaan dañu koy jàppale mais di wax sénégalais boobu di ko sensibiliser ne ne nay éviter il vaut mieux avoir tout le monde que avoir des personnes yi nga xam ni ñoom dañoo am xel ñaar ba pare di liggéey ci xel ñaar ba pour ñeneen ñi am xel ñaar donc parasite ak noon dafay yàq baa ko mayee nag dafaa jël donc wax rek ne encore une fois de plus dans le speech le respect mutuel da am solo waaye nag ma rappeler benn fait mooy que il y a eu des pics venus de Thierno Bocoum de Thierno Alassane Sall tout au début euh, quand il y a eu le refus de parenage en tout cas au niveau de la direction générale des élections on a en entendu des pics te moment boobu sax la ñu gis waa aar génn commencé wax alors que moment bi ñu nee par exemple Yewwi Askan Wi doo bokk lu bokk sur le plan de la communication si moi j'étais dehors j'allais j'allais réagir parce que entre votant léegi nit bëgg votel diw bëgg a votel Ousseynou gis ne que kat Baye Assane mu ngay wax la ko intéressé mu votel Baye Assane léegi-léeg Baye am taxawaay bu mu am mu contre ko votel Ousseynou quand bien même quand bien même quand bien même li feeñ ñu a gis ni mu ñu kaa dégg mu la rii di ñëw moo di ne monsieur Sonko et bien parti pour être au devant de la scène yàlla na ko jig bu dee am na waaye nuy wax ne les pics la venant de art tout au début mooy moment bi parrainage bi amee bu fekkoon art jóg na daal di ne non non non fii waruñu fi bedd benn liste ñëpp dañu war a bokk wala daal di ne kat. yéen marqué point wala dañuy marqué point Sénégalais yu bëri leen di fekk si wala ñu ne kat eh bu leen sonal Yewwi Askan Wi mënu leen ko génne ci élection yi vous avez vu qu'ils ont gagné beaucoup de localité ci locales yi kon loolu. je dirais pas par hypocrisie daf leen doon apporter lu bëri defuñu ko. nu ne tekk bi Yewwi réagiré ñoom ñu daal di jog looloo indi nit ñi am xel ñaar daal di ne waa aar yi Macky Sall la ñu àndal et les gens ont commencé à en parler après qu'est-ce qui se passe. mais loolu moo loolu bokk na ci li plombé aar Sénégal mooy que nit ñi tout de suite ils ont ils perdu confiance mais wax nag ne l'un dans l'autre le combat il faut pas le fausser ce n'est pas Ousmane Sonko ce n'est pas aar c'est le président Macky Sall et son camp qui ont échoué ñooñu nag échoué. sanu ay nit lañu sanu ay bokk lañu yu bokk si ñun fii ci Sénégal mais comme dañ leen dénkoon liggéey liggéey baaxul la leen wax tegal na leen ko ndànk ñun daanu ko gérer donc l'opposition nag maintenant dans son ensemble dañu war a dem ak intelligence ak tact de tous bords de part et d'autre pour ne pas se tromper tromper d'objectif. xam naa parenthèse boobu la ñuy euh, tëjee euh, toftal ci euh, wàllu Mamadou Seck bi nga xamante ni dañu doon ko tuumaal ni dafa daw Mimi Touré débat bi nga xamante ni. wax nañ ko muy soulever ñoom ñaar Mimi Touré teg ay conditions débat boobu est-ce que jàpp nga ni am na utilité jamono bii nii. mais ak moo doon bien c'est dommage et est-ce que xam nga ni stratégiquement ça aurait été super méga bien même pour le camp du pouvoir de pouvoir être en face de l'opposition et de se défendre sanu yaay bi Aminata Touré saa yi she talks so dafa mën a wax macha allah. que que am charisme la que nu mën a déglu la boroomi xam-xam la léegi nag man dama jàpp ne ba ma wooloo ma bopp du ma am xel ñaar ci waxtaan ak kii que ce soit encore que je suis le pouvoir bu dee nit ñi am nañu xel ñaar gis ngeen dëkk bi gis ngeen campagne bi gis ngeen sénégalais yéen a dégg vous avez vos services de renseignement généraux vous savez que les sénégalais sont fâchés un débat c'est une aubaine pour le pouvoir dommage qu'il rate le, le le pouvoir parce que la réplique de Sanoyaay bi Aminata Touré je trouve que c'était pas ça waaw na leeral na leeral na lan la noo leeral tout le monde les sénégalais disent que sur Adji Sarr c'est un complot les sénégalais disent que fa mu nekkoon ca impôt les sénégalais disent que député la woon ngeen xeex ka les sénégalais disent que taxaw ngeen biir assemblée muy dénoncé ngeen lànk ne du ngeen ko déglu les sénégalais disent que finalement tongal ngeen ko ba mu nekk devant vous assumez soyez en face de lui wax leen mu wax sénégalais yi déglu. te ak moo doon bien laa la wax ak ñi nga xam ne ñoo la ñoo la ñoo la nguur gi malheureusement ils perdent le coche ils ratent le coche alors qu'ils auraient pu en profiter et expliquer au Sénégalais ça aurait pu être un super support de communication pour ñoom tey ñu ne synchroniser nañu RTS toutes les chaînes tous les sites toute la presse le sieur Sonko chef de l'opposition Sanu Yaabe Aminata Touré après ils pourront dire le pouvoir oui bokkul ci li si ce pas avec lui qu'on doit débattre mais comme si mun ti doon ci opposition bi ka si nekk mën na taxaw defaan mbir mi. démocratie de suy gagne. mais la démocratie gagne moi si j'étais le pouvoir bu fekkee honnête naa ak moi-même ak le peuple te yàlla rek tax dinaa ne mais je vais débattre avec le chef de l'opposition même s'il fait pas partie même si c'est pas des présidentielles c'est les législatives c'est la tête de liste qui a été mise à l'écart euh, mais quand bien même parce que communication boobu ak moo doon apporter nguur gi mais aujourd'hui les gens qu'est-ce danoo daw. alors danoo daw vu le contexte hivernal et tout ce qui s'ensuit ça le pouvoir est perdant ci sénégalais yi di metti nga ni fa duut sa baaraam loolay metti seen xol yi ay toog sa ordinateur di tappe di kaj-kaj yi kaj-kaj yi suba ngoon di saaga di xuloo bépp journaliste bu ñuy fay xaalis pour nga défendre opposition wala nga défendre pouvoir xamal na yow tu es dernier de la classe indignité caractérisée. Ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifier ahadis yi ak ayat alquran yi ngir ragal gouvernement